الحمد لله الحمد لله الذي أوعد وأوفى الحمد لله الذي من بلا من الحمد لله الذي رزقني على هذه الجلسة الحيمة الشاملة بالفتوحات والأنوار الإلهي محمدية وصلاة الله ثم سلامي على خير من أرسل رحمة وهداية لبني البشر وعلى آله وأصحابه عفا عزهم إلى يوم الجزاء rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani yafu qawli mbokk jullit yi ñu ngi dellu di leen nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel fii seen télévision Thiès TV la première seen thiessoise tey fa tabarakallah ñu del si niñ koy defee seen édition spéciale ànd koog mawlud tey ñu ñëw benn si ëttu mag ñi ñëw fii nga di ëtt maam Ahmad Baro radiyallahu taala anhu warda annahu bi amin fa tabarakallah seq kook njaboot geeg sedd yeeg fa tabarakallah ñoom ñëpp jagleel nuyoo xalifa bi bu baax sëriñ Muniiru saaxibu xalifa tey ni ziyaara ko waaye ndokkeel ko ñaanal ko suñu borom yàlla dool kattaneel ko yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaye ànd ay rakam yeeg a njaboot gi fa tabarakallah noonu ñuy nuyoo bu baax sama imam bopp imam asbaro ziyaara ko ndokkeel ko bu baax fàttewuñ sëriñ Ousseynou ñu ziyaar ko bu baax ñaanal ko suñu borom yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla aar leen amaana bu ma limee sax du ma matal waaye fa tabaarakalla bo nuyoo xalifa bu rek nuyu nga njaboot gi yëpp waaye jagleel nuyo bu baax tey ki nga xamante ne suñu teewaay mu ngi jaar si loxoom di suñu sëriñ Ahmed Sall Ndiéguène ziyaara ko bu baax nga xam mooy supervisé commission culturelle bi yëpp rek ñu ñaana ko suñu borom yàlla na yàlla dolli kattanal ko waaye tey nag ñu am si ñaari invité yoo xamante ni ñoom nañ fas yéene seqal li nga xamante ni moom mooy waxtaan wi di seriñ Babacar Camara mi nga xam moo nekk nii fatabaarakalla suñu càmmoñ waaye di seq ko ki nga xamante ni eh, suñu Serigne la di Serigne Muniru Moussa Njëgeen fatabaarakalla yàlla dogal ñu safoo ko lool ci xam-xam bi macha allah ak eh, fasaaxa beeg mën koo joxe daal daal fatabaarakalla ñu ngi koy ziyaara di ko ndokkal di ko ñaanal suñu borom tey nag ñu ñëw ngir fas yéene waxtaan eh, lenn rek ci jamono. buñ ci tànnee li nga xamante ni moom mooy thème bi nga xam moom la xadara bi tànn tey ndax ku nekk xam na ni yonte bi alayhi salatu wasalaam yàlla da ko yónni ngir mu ñëw li nga xamante mooy tedd ngay jikko yi mu defaraat ko waaye ku nekk xam na ni diggante yonte yàlla Isa ak yonte yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam li fi yàqu dafa bari li fi lëndëm dafa bari kon nag dikkug yonte bi alayhi salaam mission la boo xam ne dafa ñëw ngir xool situation fi mu tolloon yi fi bon yi fi yàqu lépp ñu dindi ko tey loolu mooy li nga xam moo gaaraat suñu société bi nga xam Sénégal bu ñu demee ba jikko yi nga xamante moom nañ nammee woon suñu mag ñi jàngal lañ ci sallallahu alayhi wa sallam suñu mag ñi jàngal jàngal jàngal ñu ko si jikko yoo xamun moom nañ làmboon tey bu ñu demee ba commencé perdre loolu ba yëfi xew di xew moo tax xadra bi ne kon nag jot nañu tànnaat li nga xamante ne moom mooy moom mooy eh, fa tabarakallah thème boobu ngir yeesalaat ko waxteene waat ko ngir jeunesse bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy bàyyi xel li nga xamante ni fa tabarakallah moom mooy waxtaan wi buñ si jugee mën a defarwaat si gàmmu gi buñ si jugee mën a xamaat fu ñuy tegat suñu tànk ngir yoraat jikkoy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam c'est sabab lool moo waral tey ñu seq koog boroom xam-xam yi euh, kon bu ko defee dañuy jox sëriñ Mounir Moussa mu ñu nuyonteeg téléspectateurs yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu si baat asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la delloo nuyu di la ziyaara di la baalu xaq te di la ko baal mm-hmm. waaye nu ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yëpp mm-hmm. di nuyu mbooleem kilifa yi réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. moo xam ñi nga xam ne min jihati diini la ñu nekk aw min jihati ñëpp ñu ngi leen di nuyu mooy ñu yor wàllu àdduna bi ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla dénk lislaam bi ndax jamono ju nekk rek dana am ñoo xam ne loolee seeni taxawaay la mooy wa ulul amri minkum waaye ñu ngi sant yàlla bu baax subhaanahu wa ndax sant giñ ko war a sant dafa bari loolu xéewal yi dafa bari niamatul ijaad niamatul imdaad mhm. niamatul iman niamatul islaam mhm. yooyu yëpp ay xeeti xéewal la yoo xamante ni buñ ko doon sant duñ ko matale mhm. moo tax boroom arab yor uh, alxuraan di wax ni wa in taudu niamatallahi la tuxsuha waaw boroom xam-xam yi wax ci ni Euh, donte baat bi li mu idaafa moo tax mu nekk taamim hmm. waaye dëgg dëggi wax ji mufrat la mais idaafa bi mu def moo ko def taamim hmm. waaw ndax yàlla dafa wax ni wa in taudu bu ngeen daje woon yéen nit ak jinne ni'matallahi an ni'matu bi maana al la mooy benn rek mm-hmm, mm-hmm. di jéem a lijjanti di jéem a sant di jéem a gërëm benn benn xéewal bu yàlla defal doomu aadama rek mm. damir jee la ko laa tuxsuha du ngeen ko mën a matale waaye damir ji ni'matallahi jooju moo tax ñu def ko xaamal ko ni bu ngeen di jéem a lim xéewalu yàlla yi kon benn xéewal la yàlla wax boo jëlee benn lu bët mënoo koo lijjanti dëgg la nga jël xéewalu xel mënoo koo lijjanti mm-hmm. nga jël xéewalu jàmm mënoo koo lijjanti mm-hmm. nga jël xéewalu lekk mu rees mënoo koo mm-hmm. lijjanti loolu lépp yàlla defal ñu ko nag jël yonent bi teg ko ci suñu biir waaye dimbali ñu ba ñu bokk ci ñi nga xam ne nangul nañ kon yàlla ñu ngi koy gërëm ci loolee di sant yont yàlla muhammad di ñaan yàlla yokku leeram di ñaan yàlla yokku leeri saxaabaam nga xam ni lépp lu ñu am rek tabarakallahu yàlla mu ko jaarale ci moom yonent boobu ñu ngi koy gërëm mm. di ndokkeel mbooleem kilifa yi diini yëpp mm. nag ñëpp mm. ñëpp la ñu ndokkeel leen ndokkeel ci weeru tedd wi mm-hmm. weeru barke bi weeru teraanga bi rawani nag tabarakallah kilifa gi nga xam ne ñu ngi aju ci moom mm-hmm. muy Cheikh Mouhamadul Munir mm-hmm. di ko ñaanal yàlla may ko wér ak i njabootam ak i taalibi ak soppeem kon daal xaas mu mel ni ki loolu daal la ñu ubbee di la delluwaat kàddu yi jërëjëf Hadji Mouhamadul Munir eh, Moussa fa tabarakallah ci Euh, euh, ubbi bu am solo bi nga xamante ni def nga ko fa tabarakallah mu di xéewal yi nga xamante ne suñu borom defal na ko doomu aadama waaye boo si doon lim benn benn rek fa tabarakallah lu tax nga man koo delloo njukkal sa lam la defal kon fa la boo ko defee ñu nuyu euh, ki nga xam mooy imam wala nga ne oustaz boo si waxte muy benn sëñ Babacar Camara imam ñoo ngi lay nuyu bu baax si bat asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk mi ñu ngi leen di ziar bu baax ni delloo nuyoo di bég ci ki nga xam ne kii moom lañu bokkal jataay bi sëñ Muniru mi moom euh, yàlla dogal na sunu sag la ci dëkk bi mm-hmm, mm-hmm. moom moom turandoom sag la ci dëkk waaye moom mii ku dëkk Kër Ma Alaaji wax ma sa Kër Ma ku dëkk cees yaa ngi déglu sëñ Muniru rawat na ajjuma ak ak programme yi muy doxal. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla bëri leen nag këmam ci biir. mu ko defee euh, li nga xam ne jamono ji ñu toll. muy gàmm. gàmm dafa am solo lool. te parce que munaasabaat yi bari na waaye munaasaba bii nga xam moo ñuy fàttali ki tax ñu gën suñu borom dafa wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen a fi gën est-ce da ngeen di dégg lu baax da ngeen di gëm yàlla mhm. di digle lu baax di tere bon mhm. nit nag lu mu xamul mën koo jëfe dëgg la moo tax suñu borom bi mu bëggee ñu gën fi mhm. mu yónnee ñu te cëral lañu ki fi gën mm-hmm. mm-hmm. mu sa mu sangu mbindéef yëpp rasulullahi muhammad sallallahu alayhi mu indi nu euh, gannaaw bi di li sëñ Mounirou doon wax léegi en temps du maanaam dafa am am na boroom xam-xam bu ñu doon wax mu tawalli Sha'rawi mm-hmm. ca Égypte borom xam-xam bu am solo lool am lu ma waxoon ci ayat maanaam kéemaan yi nga xam ne kaw ni yàlla sunu borom dafa feeñ ci fépp ba pare na bëtu lépp loo ba si ba jàngat alxuraan. Mhm. dafa naan boo laajee ñiy weddi. Mhm. ku defar asamaan si yàlla la ñuy wax. Ah, ku defar ngelaw li ñu ne suñu borom. Mhm. te ñu ne suñu borom sax yàlla <laughs> nanguwuñu nanguwuñu ne mooy yàlla suñu borom waaye nee nañ yàllaa ko sàkk. su boobaa nag. comme que nit ñi nangu nañu ne. am na ku fi def lii. lu kenn deful moom néew fi. dëgg def lépp nag. moo xam li gën su nun bi ñu defee nit ñu sangu mi def yëpp mm-hmm. ñun ñu war a bañ a des ci ginnaaw mm-hmm. ba mel ne bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen yor mm-hmm. parce que ci jikko sa comportement ci ngay gënee ginaar gi ci ngay gënee xar mi ci ngay gënee nag bi ci ngay gënee euh, ngeen jéggal ma mbaam xuux meeg yooyu yëpp parce que boo xootee boo xoolee nag animaux yooyu yëpp seen jikko am na ci nit jikko joo gis ci animaux yi rek bati ci weñ wii di naaw nga xamne fa sax sukar mu ñëw am nañu mel noona kay su boba nak sunu borom bam ñu bëgge ñu bax mané wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsaanan bu len jaamu kenn waye na ngeen top wayjur yi ba pare nak mu wax wayjur ne len khu anfusakum wa ahlikum naran wa naaran an-nas wal hijara yéen kilifa ye fexe leen ba fegal sen bop ak ko len yilif safara soo xam nit ak xeer lañ koy rokkas ci mbaaxam moom yàlla jamono ju nekk muy samp ay nit ne ñun Seydina Muhammad xool innama ana bashar mislukum yuuhaa ilayya nit la comme ñun da doon lekk di naan di nelaw am njaboot génn na àdduna kon kenn du ko jaamu waaye nag yuuhaa ilayya ma ci maanaam wax yi bi mu ko jox ku ko topp rek jag ku ko topp xarit yàlla di nga baax di nga nekk sang. Mm-hmm. ñàkk topp wax yu boobu nag moo dellu ci li nga waxoon ne jikko yaa ngi yàqu. dëgg la. jikko yi mi ngi yàqu ndax dañoo topp bànneexu bakken mm-hmm. ak suñu xalaati moroom. Mm-hmm. bàyyi fi alxuraan. alxuraan ak yonent bi. wallaahi azim ko topp sangee doon. suñu xalifa bu baax biis. Cheikh Mouhamadul Munir. yal na yàlla dolli wéram. allahumma li tax mu gën fi. mooy dafa topp alxuraan. dëgg la. mi nga xam ne bii sunu maam maam alaaji Modou. Mhm. maam alaaji Ahmad Baro. Mhm. diine lislaam gi ñu dundal. Mhm. mooy la may li ñu am. dëgg la kon nag ku bëgg a nekkub sànq toppal ci seen ginnaaw. loolu la laa doon ubbee jotaay bi. jërëjëf jërëjëf eh, Serigne Babacar eh, eh, Camara si kàddu yi am solo yi nga xamante ni yëkkati nga ko Imam Mounir fa tabaarakalla bu ñu jàngatee gàmm thème yi bari na lépp ngir. delloowaat ko si sang bi ñu ne innama buxistu li utamima makarimal axlaaq ñii ni eh, wa innaka la ala xuluqin azim kenn ku si ne am na mawduux boobu mais boo xoolee ci suwaay day delluwaat si sang bi kon la lama la ma ca jàngee mooy kon bi mu dikkee am na jikko yu mu fi fekkoon ndax kon dafa doonul jikko yu ñu gërëm ñu war koo defaraat ak nan la def ngir mën a ngir ngir eh, réussir si mission boobu yan axlaax jikko yi nga xam ñoo fi nekkoon muy jikko yoo xam moom nañu gaañ ba tax suñu mag ñi tey indiwaat tem boobu fa ngir ñu yeewaat ci xale ni jikko yooyu ñëwaat na tey ba ñu war leen a delloowaat tey ñu teeguwaat siraatal mustaqim waaw tabaarakallaahu ustaz laaj nga lu am solo xam nga sama papa dafa wax sànq mhm. ni nit ak rab dañoo am lu ñu bokk mhm. boroom xam yi dañuy wax ni dafa am lu ñu naan as sifaatul sabiya Moy melokanu rap, hmm. moy ku agressif hmm. rap dafa agressif lol amna as sifatul jabarutiya moy nit ki yenn say day yor jikkoy beug notel hmm. gis nga nit ak rap mbollem li len bolé dafa bari deug la muy digënté lek nan nelaw ak hmm sen différence rek moy xel xel faqat moo tax yàlla di la wax ni bu am ñu mu mere mhm. ba ñu yàqee seeni jikko mu ni ko kal anaami mm. ñoo ñu seeni jikko yàqu la de seeni jikko yàqu la seeni ñoo yàqu ba yàlla ni kal anaami ñooñu de dañoo mel ni gàtt oh. ndax nit ki bu demee ba ci àdduna lekk Mm-hmm. naan mm-hmm. nelaw bànneexu mm-hmm. la fi def xalaatul mais kooku moo gàtt bi ñu yeew ci kër gi ñoo yem wax nga dëgg waay wala déet wax nga dëgg waay mel ni gàtt yi dañoo ñëw ni yàlla loo ñu mas a wax rek lii ñu gën a naqari mun le baal leen ma bal hum adal oh. ñoom sax ñoo gën a sànku gàtt yi parce que gàtt di nga ko yar tabaski jot nga jëfandikoo dëgg la wala ngay tudd mais nit kenn du ko tabaskee yàlla moo tax nit kii dana yàq jikkoom ba dellu ci asfala saafiliin Hmm. ñoo ñëpp ñu seen jikko yàqu lañ. ah bon ah jikko ji yàqu. lu ne la man moo tax euh, hmm. Hmm. benn boroom xam-xam dafa toog di càmbar nit ñi. di xool xale yi. ni ñuy tuxeem yàmba. ni ñuy agressé nit ñi. ni ñuy xastee ni ñuy waxante wax yu bon yi. mu jékki-jékki jël xasida bi ni waxal yurja lil atfaali kamaalun isar tadao sadyey naqisaatin mooy lan si wolof waaw mu ni mais bu leen ñu fontoo mhm. nan la xale yi di mën a matee mhm. nan la xale yi di mën a nekkee ay sang mhm. bu dee xale yi dañoo nàmp weenu doyee di oh sang dina fa jafe de waaw kon léegi dangay gis ni jikko ji mu ngi dooree ci maanaam dàtt bi dàtt bi waaw ndax boroom xam-xam bi dañuy wax dafa am lu ñu naan assalaaxul assalaaxu sibyaan mooy xale bi disque bi nekk ci bopp bi xam nga nit ku ne xale disque la. waaw disque bi nekk ci bopp bi da ngay fexe ba xale bi disque bi li muy capté. Mhm. mu nekk lu normal. est-ce que oustaz gis nga ni sunu xale yi sunu kër yi yëpp. boo fa demee. Mhm. xale bi dagg saaga ndey lay njëkk a man ah, boobu lay njëkk a parce que disque bi loolu lay njëkk a capturé yow Pape Laye tey man naa ngam. dëgg waaw. waaw parce que ah. disque bi. disque bi waaw yaa ko ci mémoriser moo tax disque al anbiya ak annaasu du ñu bokk parce que disque bee même boo ci bëggoo mémoriser loolu du nangu du koy rejeté oh dégg naa xam-xam dégguma disque yeneen maasum waaw maasum lañ moo tax ñoom seen disque waaw même bi ñu ne xale boo ci bëggee enregistré daal du koy rejeté allahu akbar mais ñun suñu disque nag waaw naa boo ko enregistré day jàpp ndax ñun du ñu ma maasum mais mahfuz lañu Oh. taaratan dëggal li taaratan taaratan waaw ah, yenn saa nitu yàlla def dérapage dëgg la dëgg la ah, léegi nag disque boobu moom la ne almaslahu sibyaan mooy fexe ba xale bi mm. produit bi ci mm, boppam mm. nga mën koo récupérer bas âge mën a def li ngay def ci moom te loolu l'islam nee na mënoo ko am loolu ci benn ngay dem ci al alma alal madrasa wala ilal madrasa afan mhm. nga fexe ba jàngal xale bi mais la nga koy jàngal da ngay fexe ba ki koy ki koy produire la ki koy produire wax naa la parce que weer yi boo gisee yonent bi raw ci àdduna bi sallallahu bi muy wax ni ndey muy première école ñu bari ñu ngi naan mais li muy xam na ko de gis nga xale bi oustaz bi nga koy nàmpal waaw foofu boo fay saaga ndey mu ngi capturé waaw am na ku ñëw ci kër gi ni la waaw ana sa ndijaay nga ne ko génn mu ngi ci biir xale baa ngi capture yenn sax yaay dem ne ko demal ne ko sa papa niwu fi tam bàyyi na papa ji sànni te jamono boobu yëpp jaxale bi mu ngi capture bisque baa ngi jël bis oh. kon gis nga dañuy wax ñu xoolaat bu baax dégluwaat sëñ bi li mu wax jikko yi ñuy wax yëpp ci dàtt bi la dëgg la fa fa am amma zabadu mhm. fa yëzhabu jufaa wa amma ma yanfau naas fa yamkusu fil ardi kon gis nga réew mi ñuy wax dafa yàqu waaw yàlla nee na loolu wax ju yàqu la wax ji was alil xariyata la yàlla wax bi maanaam was gis nga réew mi yàquwul ñi dëkk réew mi la xam-xama neex attention ñi dëkk réew mi la de was alil xariyata yàlla bu naan laajal dëkk bi mais nit du dem di laaj ay xeer déedéet mais la was al ahlal xariyati la bëgg a wax mu jël mu ilay teg ko ci was alil xariyata kon al axlaaqul mazmuma ak al axlaaqul mahmuda moy fexe nag jikko yi da ngay def li naan at taxalli xali mooy da ngay désinfecté wu wala nga xubbiku ni jaan dëgg la gis nga nit ki day judduwaat de ah si comment di nga demee ba majeur waaw da ngaa war a nag defaat li naan al imaanu zaat yi mooy nga taxaw nag xool étude lii nga ne lan la lan la nga xool jikko yi nag nga def al nga def atta lii nga fexe ba désinfecté sa bopp ci jikko yu bon yi mhm. xam nga jikko yan la yan la sunu maam Cheikh Omar Fouti dafa wax jikko yi yàq nit mhm. dafa wax taalibe bi ni ko waaw seytaane xaj xaj mm-hmm. bu xabee xab ci ndab lan moo koy lan moo koy faj mm-hmm. xab mooy xaj mi dafa ñëw fekk ndab li tege am ndox mu def ci làmm ñu yëngal ko ci gis nga xam nga da ci bàyyi juróom-ñaari micro ah si loolu jàng mm. nañ ko ci fiq <laughs> léegi da nga koy raxas juróom-ñaari juróom benn juróom-ñaareel ko suuf nee nañ mooy désinfecté microbe bi mm. Cheikh Omar ni waa bu dee lu gën a bon xaj dafa xaj dafa xab ci lu gën a set ndab lu gën a lu gën a bon xaj mooy iblis lu gën a set nag mooy xol gis nga jikko iblis bu xësee tufli ci sa biir xol wala mu mar ko mm. dafay bàyyi ay jikko oh. jikko yooyu juróom-ñaari jikko la yan yëpp nag fa la yàqu di dooree mooy ñàkk xam mm-hmm. rëy mm-hmm. anaaniya yëg sa bopp mm-hmm. al ujbu al riyaau al al xasadu al xadabu gis nga yii bu xësee nekk ci nit ki yii rek yow fexeel nga xam ne loo defagul waxtu waa jotul kon boo defee attaxal lii mooy fexe ba jël jikko yu ñaaw dind ko ci ngay defee atta xal yi ndax gis nga bala ngaa diwu da ngay sangu ba set mhm. fomp doo ko diwu kon bu ko defee jikko yi pour nag ñu mën a defaraat jikko yi faw fala budda an narja mhm. mënut a ñàkk ñu dellu ci lislaam d'accord faaw ñu dellu ci lislaam faw ñu dellu it ci arxuraan dëgg la ñu dellu ci sunna ndax yàlla moo ko xoolal boppam ni ko yow rek laa xam ne bu ñu la toppee dinañu orienté woo in tuti uhu in grammatical wa in tuti'uhu yin bu ngeen topé waji waji yalla buñ ko top mu ni tahtadu da ngeen seen jikko dina bax tahtadu di ngeen jup tahtadu di ngeen yaru tahtadu di ngeen teggu ci yoon jeri eh, iya, serigne munir ñu ñëpp jërëjëf serigne babakar degg nañ eh, imam munir ci akhlaqul magnumi mi nga xamanteni fa tabarakallah hmm. muy jikko yi nga xamanteni gis nañ ko jamono mo waral ngay ray ni tal mooy waral ngay xotti nit yamoo ci jam ko di xotti yoo xamante yow miinoo ko fi woon yooyu ngay dem bay gis léegi si réew mi saaga sa yaay def naka sudul noonu mooy disque yii nga xam moom la wax ni capturé ci à bas âge nga xamante ni foofu lañ war a euh, tàmmalee li nga xam moom mooy yar bi léegi nag boo gisee demee ba fi muy daaneele mooy dañoo am roy waay ku la xaw min giddi bu spirituel boobu nga xam suñu borom indil nañu di sallallahu alayhi wa si yan critère lañ samp ñun ngir man faa jaar am jikko ya nga xamante ne moom la làmboo woon sang bi man de foofu euh, li ma gis moo di ne mm-hmm. suñu borom def noo julliloo daf ñoo julliloo julli mm-hmm. te julli nekk lu am solo lool mm-hmm. te inna salaat tanha anil fahsha wal munkar est-ce que boo dee julli na war a jullee daf lay raxas li hmm. sang bi waxoon ne léegi da ngay def taxalli hmm. am la taxalli hmm. na nga raxasu ba set na nga sangu ba set soog a laal parfum muy dëgg bu ko defee julli euh, sang bi waxoon na ne boo ñu amee gone bu julleegul ba am juróom-ñaari at nañ ko sant muy julli te su am na problème ndax xale bi yaru ci kër gi waa kër gi yëpp julli mu ànd am juróom-ñaari julliwul man ta am dëgg la kon suñu soxna yi ñi nga xam ne ñoo ne ci kër yi. Mhm. ñoo ëpp lu ñu toog ci kër yi nañu fexe te dafa mel ne sax bu ñu mayee sonn dañ ko am mot dañuy borom kër gi boo demee na ngeen ko wax mu mottali ko diineem. kon kon te gone gi dañ koy yar bala muy juddu. dëgg la ba ñu tànnee. kon kon kon foofu du du du fu la neex ngay tànnee kon kon war ah. déedéet gone nga daa yàq avant muy juddu. Oh. taxayyaruu fikum fa innal irqa dassaas oh, Seydina Muhammad dafa wax ne booy wut soxna mm. wala ngay wut boroom kër mm-hmm. na nga seet fa nga koy def mm-hmm. ndax bool bu tax kenn du ca def déedéet bool bu tax bool bu bool bu salte mm. kenn du ca yàq dara kon nag bu ñu bëggee julli gi baax mm. nañ ko waajal ba la muy judd mm-hmm. nañ koy nañu dunde ñoom wéjur wi alal ju lew ndaxte ku nekk li ngay lekk daf lay ji am njeexital ci jëf la ngay jëf kon waaw ah boo demee ci jawaahirul maani ñu ngay wax nekk kuy dundal lu baax def lu baax da koy yomb kuy dundal leneen tam lu ko neex def est-ce que kuy lekk ni jur gi lekkee hmm. lu nekk mën nga koo def maanaam loo dajale dégagé mu ko defee nag loolu njeexit yooyu di dugg si biir gone yi di ko màggaale judd euh, euh, ci wetu way jur woo xam ne sangu farata sax xamu ko hmm. nekk fa yenn saay mu julli yenn saay du julli bu gisul kenn du julli bu dee ba màgg lool ba amuk moom 15 ans nga xam ne yar bi ñu ko doon yar daanaka léegi naanaam bu doon garab la léegi tuuti kon mu rëcc. dëgg la su boobaa nag ak gi day day taxaw. Mm-hmm, mm-hmm. moo tax ñuy wax ne nii nga gis kër ma àllaaji mm-hmm. foo fi ruq boo fi dugg daara yaa ngi fi. la du mën a wax kër ma àllaaji sax waaye Thiès laay wax. léegi daara dafa bari macha allah. dëgg la te lu ama am solo la. na ah, nañu delloo ndaw yi ci daara yi. ak métti mooy mën a defi na nga jaar ci daara ji. xam nga foofu bu ma jamono mhm. jamono Senghor dañu wax ne nguur gi dañoo yaru woon. Mhm. ndax ñu ci bëri ay ndar-ndar lañu te ndar dañu dafa nekk dëkku daara. dëgg la kon nañu defaraat loolu bu baaxee ba julli gi baax ku julli na nga war a jullee doon ne doo nekk agresseur mukk hmm. ba demee këyit ba demee police. waaw wuti këyit moo la fiy yóbbu waaye deesu la yow di fa yóbbu. est-ce naa dégg hmm? lu am solo la dañuy julli te julli li muy wax hmm. ba ne yaaka na abudu yow sunu borom yow rek la ñuy jaamu hmm. bu fekkee li nga wax dëgg la ci yow kon war ngaa xam li ngay jaamu lan la ak noo koy defee dëgg nga soog a wax yaaka na sax yow rek bala ngay yaakaar kenn xam nga sàcc bi ñëw di tëmmiir di di di dafa am lu mu yaakaar ci kër gi. dëgg la te yaakaar gu yaakaar lu wut. Mm-hmm. waaye fekkee ne xam ne yàlla mooy borom wërsëg. Mm-hmm. waaye yàlla dafa bëgg ñu am jom am mm-hmm. métier yu baax. ñu teel a yar ndaw yi ci métier. gone yu bari ñu ngi naan liggéey amut. te boo leen wooyee du chantier ñaari fan ña doo bàyyi bàyyi la fa. de fi ñaag googu jaaxal na ma lool ah, ndaw ñi ku amul métier. te bë te bëgg lu mu def lu mu sol bëgg lu mu def ci biiram. balaa yàgg mu def leen. yal na yàlla jubal nu yal na yàlla fayal nu kilifa yi jërëjëf <laughs> jërëjëf Serigne Babacar ci kàddu yi am solo yi nga xamante ni moom la fi leeral donc euh, gin ñoo ñaaxaat si li nga xamante ni moom mooy julli ndax ku ne xam ne ni julli fa la nit ñi darawee imam solution bi ginnaaw yàqute yii lan mooy solution bi ñu war a teg suñ tànk ngir mën a sauver suñu àdduna jag li des si ñi nga xamante ne rëccul na leen suñu li des jag waaye la ñu jëmit jeeg waaw xam nga yàlla moom moo waxal boobam ci biir alxuraan walaw annahum izzalamu anfusahum waaw jaa'uuka fastaxfarullaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahima dëgg la de loolu yàlla ma ko wax moo ne xam nga law xarful imtinaa la lil mawjud lil mawjud waaw lil wujud maanaam mm-hmm. bu ma nee billaahi bul woon sa papa waaw ma def nangam kon papa jee ngi fi moo tax defuma dëgg la law loolu la jëriñ d'accord yàlla ni pourtant walaw annahum bu fekkonte ni ñoom de zalamu anfusahum mm. yàq nañu seeni jikko ndax yàq si jikko mooy tooñ sa bopp dëgg naa dëgg. wala déet zalwansu mu yàq nañu seeni i jikko moo xam ci bàkkaar. Mm-hmm. ci def lu deful. Mm-hmm. ci ci tooñ ci mm-hmm. nàngam kaza wa kaza. waaw zalamu anfusahum. nee na jaa'uuka. jaa'uuka ñu ñëw directement ci yow yonent bi. fastaxfirullah. bu ñu ñëwee ci yow immédiatement faaji. wal faaku oh. li tartiibi bittisaali bittisaali waaw kon immédiatement ba ñu la dikkalee rek yow yonente bi rek fastaxfarullah ñu fexe ñu jéggalu yàlla mm-hmm. xoola mais du ci yem wastaxfara lahum rasul yonent bi tinu leen kon da ngay dégg ni gis nga yàlla dafa tax faw nga am benn jaar mais mënoo ñëw rek def direct ah fastaxfarullaha mm-hmm. wastaxfara lahumu rasul d'accord oustaz gis nga xam nga ni nit mën naa ñëw fay nit ngir mu ñaanal ko yàlla jéggal ko ah bon ah, wastaxfirlahum rasul ah, yaa baa nastaxfir lanaa yonte yàlla yusufa ah, mbokkam waxuñu ko saw fa astaxfir kay wala déet kon fastaxfirullah mhm. ñu jéggalu yàlla lañ daan def démb wastaxfirlahum rasul yàlla yeneen bi jéggalu leen nee na gis nga bu ñu defee loolu la wajadullaha la la wajadullaha danañu fekk buur yàlla tawaaban mu bari lool bi maanaam yu firu taksir tawa faal bi maanaam yu firu taksir uh-huh. mu recevoir ñëpp seeni tuub mm. mais en même temps rahim kon ku bëgg dellu sa démb mooy mm-hmm. sa fitra waaw ba nga amoon démb mm-hmm. amul solution bu weesu yonent bi sallallahu foo mën a jaar it raccourci la da nga sonoon sa bopp foo mën a jaar ci yonent bi lay mujj mooy solution bi kese ci waxam ci jëfam. est-ce que du moo tax suñu mag ñi dawul bàyyi lépp. ata wuti ko mais ñoom li ñu am lépp. ñëw may moo tax waykat ba wax ko. ñu wax ni ni ni xanantu. ilaa xabri nabii muhammadin. sallallahu alayhi wa sallam waraaxat bi ruuxi. naxwa taybata riixun. allahu akbar xaraamun lazizu taamin xatta azurahu. اهنا وغيشا والفؤاد جريح دغاي واخ دني احنا واو كون لان ما تجو دغو نكو دي دغو نكو دي <laughs> ما واو نيب دانيو داو جيم تي يونتي صلى الله عليه وسلم داو جيم لي تي موم موني داونا فخنا واو جو فخ جوبلي تي خابل يونتي صلى الله عليه وسلم واي بيماي داو بريز بي بريز بي واو مغي وراحت بروحي نحو تيبر ريح بو نغلو لي بلانسي وصاح دي اندك روح غير صوبو mu ne xaraamun lazizu taamin xataa azurahu araamal naa ci sama ñam lekk mu saf sukkar wala mu weex mënatuma ko xataa oh. azurahu loolu dama ko ziyaare ji toog ca raw dooma mu ne ahadaw xeechan oh. ndax dund gi dina neexate wal fu aadu jerixoon te xol bi ñu ngi koy jam maanaam jerix maanaam oh. faayil bi maanaam mafool فاعل جمانم جريح فاعل بمعنى مفعول لول ابن مال دونان ولا تلي فارقة فعولا ولا المفعال والمفعال وما تلي تالفرق من زي فسون أيوة. فيعي ومن يعني فاعل يعني. كقتيل انت بموصوفة غالبة تمتنى كون جريح بنا فاعل بنا مجروح لأنه خل بدن كوي جمع ak bëgg yonent bi dañ makaarimal axlaa kon am na lu fi ne woon mais dama ñëw gën a koo xoos peinture bi gën koo raaxaat gën a defaraat birigi gën koo roofaat ci ay poto kon ay axlaaq amoon na fi mais lu mu fekkoon mu nekk xasan da koy def ahsan lu mu fekkoon mu nekk ak kamal da koy ak kamal mhm. lu mu fekkoon mu nekk at tayib da koy def at tayib kon li utammima cause bi laam bi laam li ko indi laam ji lil lil milki wa tasbihi wa maa qad at wa maa qad asbaha tasbih wa laamun tama hmm. wa addiyan wa allilan bi laami taatika inda fii bi laami loolu la borom kokki yi wax hmm. kon boo istu dañ ko rakkabal dëgg la yoon neef nañu ma yoon neef yoon dañ ko rakkabal dañ ko rakkabal yoon neef nañu ma mais cause yoon mu ni li utammima oh. ngir ma réfectionné mm-hmm. makaarimal axlaaq ko yu yiiw yii fi xool ci yonent yi oh. kon fa daa hudaahu muqtadi kon solution imaam mm-hmm. du ay Karl Marx ak déedéet ay jon xaw ma seen wax yooyu ñuy wax yooyu yooyu caaxaan yooyu nga xam ne jullit yi dañoo complexé loolu sax dañoo am alqaid bi nga xamante ni kenn gënu koo mag Mhm. alqaa'ilul azam mooy yonent yàlla Muhammad ñu bokk fi koo ci waxal naan non c'est-à-dire di jaay affaire intellectuelle mais yonent mooy suñu roy waay mooy suñu roy waay ku ñu keneen du mat déedéet wallahi ku ñu roy mat ndax kooku matul yonent bi nag dafa mat ku ñu fa roy matul de mhm. kon dañuy roy yonent bi bu ñu bañee tarxiis jërëjëf bu ñu bañee tarxiis bu ñu bañee tarxiis bu ñu bañee tarxiis waaye nag keneen koo fi roy yàlla si am garanti ko de ah ah yaa yaa garanti wu ko de <laughs> yaa njort mën ngaa gëm nit mais yàlla garanti wu kon ku ñu garanti. wa in tutiihu wax naa la ko léegi. jeex na tahtadu hmm? wa in tutiihuhu su ngeen ko toppee mu tahtadu di ngeen orienté wu teg ji keneen koo topp na ku du yaa xam sa problème mais kooku yàlla garanti wu ko. mais ki mu garanti. xanaa xëy na barke bi yonent bi mën naa dabu ca kookee yàlla dog waaye moom garanti gi moom yonent bi la. sallallahu alayhi wa sallam bañ a tarxiis mm-hmm. da ngay teg sa tànk ca yonent bi baa nga fekk ku teg tànkam fa ko yonent bu tegoon nga topp ko te mooy sunu mag bi baax ku ko ci deful nag ah kàmb góor barakallah ah, barakallah imam munir jërëjëf imam munir sëriñ babacar eh, dégg nga dégg nga eh, sallallahu alayhi mi yàlla garanti mm-hmm. te imam munir eh, joxoñ ñu ko mm-hmm. yàlla dogal suñu magi réew nag ñu mm-hmm. bi yàlla ne inna allaha wa naa yusalluna ala nabi ñoom seeni nelaw si zahir dafa noppee jeex si zahir dafa noppee jeex ñoom dañoo jublu si màggal ko wa tanzimi wa salam maanaam fas yéene dundal guddi juddoom gi nan nañ koy dundalee waa sang bi euh, alhamdulilah xam nga fi suñ mëniru daane la rek mhm. nit mënut a ñàkk royuwaay dëgg la te yàlla dogal sunu magu réew mhm. dañoo taxanali demal nu géej wallahi lépp indul tegal nu mm-hmm. dañuy wax ni ku topp yonent bi rëcc sallallahu waaye ku topp sunu sang yi mm-hmm. ma alaaji Moodu mii mm-hmm. ku mel ne moom ñëpp sag wala wallaahi xaar toog suñu borom suñu mënuyóor mii fi toog ku mel moom nekkub sang wallaahi kon bul wëri ba sonn déedéet kon nag euh, wa in tutii'uhu tahtadu ba ko toppee di ngeen jub maam Maodo wax ci téere bii nga xam ne réew mi yëpp ñu ngi koy gàmmoo muy xilaasu zahab Mm-hmm. fii sirati xayri arab mm-hmm. téere bu am bi solo wa waajibun taatul haadi mahabbatuhu mm-hmm. kaza tibau allazi yati min al umami maam Maodo dafa wax ne war na ci mbindeef yëpp nit ñëpp jullit ak yéefar war na ñoo bëgg yonent bi te war nañ ko topp hmm? war nañ ko bëgg dëgg te war nañ ko topp te nag loo nit loo xamul nag mënoo caa sore doo xam mënoo caa sore mhm. ndegam yéefare ñoo bind téere mhm. al xaaliduuna mi a mhm. téere boobu am solo nga xam dañoo tànn ñi nga xam ne seen tur dafay des ak seen jeexit ak seen jëf ci biir nit ñi ki ko bind te ba mu koy bind du woon jullit waaye kam ca jiital mooy sang bi mooy rasulullahi sang bi def ba mu nga xam ne tex daadu mojisaati yi abasun ay foo ko natt na ko waaye moo tax ñu ne nag topp ak koo mën a topp dee dox ci kaw ndox mi te du julli bàyyi ko hmm. am ñoo xam ne dañuy naxe hmm. allahu akbar kon sëñ Babacar kon wa waa ji mun taaxatul xëy yi yaa ngoon sallallahu alayhi wa sallam abatuhu sunu borom daf ñoo cërale sang bi rasulullahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu bari réere ko mm-hmm. ndaxte makk ga mu juddoo yaroo fa sax mm-hmm. Mm-hmm. fukki at ak benn yam fa def wala fukki at ak ñett bakkanam xaw na faa des guddi gëm fay jógee seetal bare na nit koy jàmbat ci biiri bokkam waaye li rasulullah da ci biiri bokkam kenn daju ko fi guddi ga muy gàddaay ponk lii ko wër soo rew ñu koy ay mbokkam nañu de wax nga dëgg daggate ko la bëgg Mamadou waxal waxal laa tasbit laa xiirata kurama ala firashika wal aada fii himami mm-hmm. bu fi fanaan de am nga ndigal est-ce que li ngeen wax ndigal rek am solo uh-huh. xam na ne jullit ñaa ngay dem Madina ndax dëkku jàmm la waaye ma amagul ndigalu dem mm-hmm. mu toog fa ba am ndigal daal di génn mm-hmm. dem moo tax rasul uh, Maam Maodo wax ni wa waajibun taatul war nañ ko topp te war nañ koo bëgg sallallahu yonent bi ne yar leen seen njaboot gi mm-hmm. ala xubbi nabiyikum sallallahu alayhi nañu yar njaboot gi ci ñuy xaritoog mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa te ku xaritoowul ak moom da nga koo xamul wallahi mm-hmm, azim ku xaritoowul ak moom da nga koo xamul moom mi sang bi wax ne moom mi borom bi wax ne wa innaka la ala xuluqin léegi nag ci war a topp googu mhm. moo tax ma indi fi ñaari xadis xadis sa bari na mhm. waaye comme que euh, mawlid bi mhm. gàmm gi dëgg la euh, day war a yokk jom ci nafar te nafar nag jëfe sang bi wax na ne rasulullah wax na ne jàngalu la nekk ci xam-xam waaye yàlla ko fay fekk jëfewuloo ko parce que wan asrikat lu mu waxoon illa lisina amanu waa aminu salihat dangay gëm yonent bi te def lu baax lu mel ne la mu doon def boo ko defee rek rëcc la léegi nag ñaari xaddis yi bii dafay wax benn bi day wax luy yàq mhm. beneen bi di wax luy defar mhm. boo xoolee addis bi mhm. yàlla dogal na weer weeru koor dama koy faral di waxtaan fii jàkk ji si ndigalu kilifa yi ñu ngi leen di gërëm baat di leen nuyu kenn ku nekk si ñoom euh, rasulullahi dafa wax ne sittun man euh, sitatu asiyaa in tox bitul amal am na mm-hmm. juróom benni mbir yoo xam ne day yàq jëf mm-hmm. da ngay jaam yàlla bëgg a dee mm-hmm. waaye sa jëf yëpp yàqu même si jiital la istian alu bi ayóbbi naa si di yittewu ayibu nit ñi nit ñi dañoo bon nit ñi dañoo nàngam topp nit ñi ba yow kenn ku nekk sa ayib doy na la dëgg la fexe la baax bérig yi nga xam ne moom nañu defaree suñu xabru bii bérig yi dañoo baax waaye kenn dajalaatul ay ay ay tojjati biir ay nangam. Mhm. dañoo moolu mool yu baax. defar ba mu baax classé. kon kenn ku nekk si ñun fexe la baax yàgg sa waa kër. Mhm. bu sa kër baaxee sama kër baax gene kër keneen ki baax bu yàggee dëkk yu baax. dëgg la hmm? te ñu bàyyi jëw gi ak ak toppatoo ayibu nit ñi. waxa sootu xal bi ak waw xol. Mhm. agresseurs yi dañoo waw xol. dëgg la nit ki. mille francs wala cinq mille ku mu jar nga jam sa morom mhm. wala nga rey ko taal ko mhm. amatoo xol xol bi wow na déedéet wa xubbu dunya mhm. bëgg àdduna ba ba amoo ci frontière noo amee àdduna noo amee teraanga rek baax na loolu musiba la wa qillatul xayaa yi ak ñàkk kersa am na ci góor ñi waaye ci jigéen ñi loo gënoon a war a wàññi koo moo tax ñu wax ne jigéen ñi sax lu jàkka di baax yëpp bu leen ko kenn aaye de waaye ñu julli seen i kër moo gën. est que ndax bëgg rek xam ne jigéen trésor la. Mhm. nañ koo yar te denc ko. Mhm. te denculu ko ndax mooy yar population bi nga xam ne bii bu leen bu ñuy yaroo ci wet ndey ju baax. Mhm. bu ñu màggee rek macha allah. ndey ju baax moom lu siiw la ci àdduna bi. wa tuulul amali. yaakaar ne man damay gudd fan. <laughs> lu ma neex def. waaye euh, bi waxoon ne. boo yendoo jàppal ne doo fanaan mm-hmm. boo amee bor sax wala lu ñu la dénk bindal teg te wax ko sa mm-hmm. njaboot mm-hmm. yow ngay waajal sa bopp li rasul waxoon ni amal li du ñàkkan nakat temps ay so abadan liggéeyal amal terangat amal wér solo lu baax dundal li dund gu neex waaye nag wa amal li axiratika ka annaka xadan da nga waajal sa laaxira ba nga yaakaar ne yow suba gi moom doo ko yeggale dëgg la mooy ngay dundee du ngërëmal yàlla ci loolu mën a nekk bi ci topp mooy euh, zaalimun laa yi koo xam dafa dëkke tooñ dafa dëkk laal ay pexe rek di mm. tooñ nit ñi mm-hmm. comme liñ naan sa kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti lijjanti gi mën a nekk ci wàllu ay ndax nit ñi mm. wala nga jaay leen doole bu ko defee yooyu benn bu nekk juróom benn yooyu mm-hmm. day yàq jëf moo am nag yoo xam ne yi dafay euh, baax lool si nit te ku ci am benn bu sax rek. Mhm. di nga rëcc. juróom benn yooyu isbaaxul wudu di faral di jàpp ku gëm yàlla rek koy def. taxoo njàpp taxoo njàpp. Ah. ku gëm yàllaa koy def. ah koo gis muy taxoo njàpp rek am na lu mu si yàlla. kon taxoo njàpp baax na. ak baax lool lool sax. lool sax. Hmm? dañuy wax ne boo ko amee njàpp sax ku lay fexeel ba yow mu dem tëri. Ah? du la mënal dara. est-ce que. wa mubaadaratu yawma dujan di bëgg jàkk di fa dem ba bu lëndëmee sax nga xuus te lëndëm nga dem fajar xam nga ngistal di bëccëg yomb na hmm. waaye fajar ba ngeen dajawoo kenn nga dem julli ji yoo yor waa ndànk dugg sa biir kër loolu jikko jooj ku mu nekk si yow sang ngay doon hmm. ah wa kasratu sawmi fi xar bi di baral looy woor hmm. tàngoor du dox sa digganteeg koor te koor nag li muy liggéey ci nit bare na Mm. aka am solo aka am solo mm-hmm. di faral di woor baax na loolu bés benn yool yool bi nga ci am rek benn bés bi nga woor te yàlla tax gistal newu ci dara newu ci mm-hmm. soral na la safara doxub sabaina juróom ñaar fukki at yoo xam ne giléem gu rekk moo koy daw yaakaar naa ne senegal mm-hmm. benn at giléem gu regg daw di wër Sénégal dana matal de juróom-ñaar fukki at na mu koy daw kon la man dana sore benn bëccëg gi nga woor ko yàlla feeral loola li ma loom léegi mooy julli fajar gi boo ko wooree boo ko boo ko jullee ci waxtoom mhm. yàlla lim lay jox mhm. sànq bi nee na moo gën lu jant bi tiim lan la fi jant bi tiimul mhm. nañuy yeewu fajar di julli ji te loolu ci yar la bokk wa sabru alal musiba bu la musiba dalee nga muñ te yàlla tax musiba nag bu la lay kañ doo muñ toog sa ruq bu dal di pexee poster noo cay génnee waaye bu ko jàmbat ba mel ne yow yàlla daa def loo xam ne bi jaaruwul ah watarkul miraay ak bàyyi bàyyi werante wa in kunta muhiqan donte yaa ci dëgg donte yaa ci dëgg bul di werante werante gu bare xam-xam dañ koy jàng pour jëfe ko ak di xam xamle waaye bu werante taxee jaratu ko nel ci yàlla bàyyi leen ñu yooyu daal mooy ay euh, ñaari xaddis yooyu mm-hmm. moom laa ne woon dañ ko fàttalikonte mm-hmm. rek mm-hmm. di ko barkeeloo ci sang bi Seydina Muhammad di bëgg ñëpp jàpp ci te jëfe ko mm. yàlla nañu yàlla borom may ñu man koo jëfee alhamdulilah amin jërëjëf euh, sëriñ euh, Babacar Imam Mounir xam naa ne ñu ngi si ceetal euh, émission bi xanaa fàttalewaat nit ñi taxawaay yi nga xam moom nañu war a taxawee si guddi juddu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam si yan anam lañ ko war a defee fexe ba moytu loo xamante ni day war jurug eh, jurug bàkkaar waaw xam nga sunu boroom mm-hmm. ba muy woote aj aj dafa woote aj ni falaa rafasa mm-hmm. wala fusuqa mm-hmm. wala jidaala fil xaj wallaay dëgg mais est-ce que xam nga ni am na ñuy dem màkka dañ fay dajee gi seeni coro nga ni waaw aj am na ñoo xam ni aj yu leen te pourtant yàlla dafa digle ni ñëw leen ak si mais falaa rafasa wala fusuqa wala jidaala mais am na kuy dagg biyem fii déggul loolu yàlla wax dafay dem ngir defi la neen xam nga sunu maam Siraan dafay wax ni azimu laylal wilaadati mais objectif mooy xisbatan allahu akbar xisbatan xisbatan nee na objectif bi mooy xisbatan isaalam yakun naxwar xaraami udulun d'accord kon da ngay gis ni mbir gis nga ñiy raas déem duñ fi denc waaye raas déem goom warul firi nga ni gàmm dafa araam dëgg naa la wala déet bu baax parce que aj yàlla doo ko woote am ñu dem màkk aj taxu leen a jóg de mais est-ce que loolu day tax nga condamné aj déedéet déedéet déedéet kon li li li war ñu wuy ji ko rek mooy yaa ayu lazina amanu stajibu lillahi wa li rasuli mais isa daakum lima yuhyikum charte isa lima yuhyikum kon gàmm gi liñ ci woote muy li dundalaa sunu ruux mm-hmm. ci am mahabbatullah mm-hmm. mahabbatu rasul mm-hmm. mahabbatu asxaab yi te yàlla moom oustaz maa lay xamal ni ku bëgg mu bëgg la bu fi sonn de ah. bëggal ñu yeneen bi rek topp ko moom ah yàlla moo ko wax in kuntum in kuntum <laughs> yàlla nee na in kuntum charte lañ tegal in kuntum ndegam yéen te nit ñi waaw tuhibbuuna allaha bëgg ngeen yàlla charte bi may mën a xam ni bëgg ngeen mooy fattabi'uni yeneen bi ko ne na fattabi'uni man ngeen i topp kon bëgg yàlla amoo fenn foo mën a jaar lu dul faaw nga topp yoon moo tax man la mbir mi in kuntum la wax charte la in kuntum ndegam yéen tuhibbuuna allaha bëgg ngeen yàlla te muy dëgg ci yéen mm-hmm. fattabi'uni Mm-hmm. man yont yàlla Muhammad ngeen di topp ci samay wax mm-hmm. ci samay jëf ci sama mm-hmm. xaal uh-huh. ndax ñett yooyu lañ ko royee dëgg la dinañ ko roy ci xaalam uh-huh. roy ko ci xawlam roy ko ci fialam est-ce que léegi nag ay maratib la mel ni gars yi dañ ne ko waaw suñu la toppee léegi nag ñu dagg loolu fa in tabiu maanaam dañ koo dagg ci wàllu balaaxa uh-huh. buñ la toppee nag mu ni yuhibbakumullah wala yahibbakumullaa Mm-hmm. yàlla bëgg leen waaw kon ku bëgg yàlla bëgg la bu fi ne di sonal sa bopp bëggal yonent bi nga am récompense yàlla bëgg la mais mu buuñaa la mais wa yaxfir lakum da la ko ci tegal encore buuñaa la waaw da lay bëgg ba pare daal di lay jéggal say bàkkaar kon bëgg yonent bi da ngay bëgg yàlla mm-hmm. yàlla bëgg la mm-hmm. jéggal la say bàkkaar wa yaxfir lakum kon pour nga xamni top yonent bi farata la li sunu papa wax legui ni wa wajibun taatul hadi taatul hadi wajibun mahabatu wajibun kon yoyu ya yulzina amanu atiu allah wa rasulahu top yonent farata la farata la farata la wajib moy lo xamanteni boko deful am bakar deug la mom la xam xam usul wax fa wajibun fi fi'li sawaba murattaban wa tarkul iqaaba wa nadbu mas sawab fi imtisali wala iqaba yati fi bihi wal xasru diddu waajibin wal makruhu <laughs> diddun li mandubin kama kad fasaru wa yataallaqu nufus bi saxiqi wa bi yuctada ala al xawli saxiqi al waajib mooy loo xam ne saay boo ko deful bàkkaar tegu nañ sa kaw dëgg la boo ko defee am nga tuyaaba mm-hmm. moo tax wa waajibul wa taatul haadi waajibun mm-hmm. wa mahabatuhu waajibun kon atiullaha wa rasulahu mm-hmm. wala tawallaw anhu wa mhm. antum tasmaoon kon ndeke mbir mi yëpp mooy topp yonent bi sallallahu boo mënatul a gis jëmmam nag fexeel ba koo xam ne yonent bi saay bu déggee tànkam mhm. mu teg ko fa ni ko sunu mag ñu baax ñi wallaahi kon topp nit wa ulul amri mhm. mais sëñ bi loolu kenn mënu koo tere moo tax yi gars yi wax nii yu ci bari ay caaxaan la waaw dañoo déggul aruxaan wa ulul amri ah. ñaari ulul amri am benn bi wàllu étatique lay waxal ah waaw ñaari uuru am yooyu ngay gis. benn mi cinquante huitième aaya boobu dafa am boo xam ne étatique lay waxal. Mm-hmm. ci état bu jub. Mm-hmm. état bu jub laa wax de. Mm-hmm, bu jub maandu. waaw benn bi ñi nga xamante ne yastan bi tuunal ilma ñooñu ñooy ñi nga xam ne ci la ñuy balluloo suñu sharia. loolu la te ñooñu mooy sunu mag ñu baax ñi kon tabaarakallaahu yal na yàlla def jàmm ci réew mi amiin amiin amiin jéggalu kàddu yi yal na yàlla defal télé bi taqaddum ak tatawur yàlla yokku leen ba ngeen yëg ko ñu ngi jéggalu kàddu yi di gërëmaat sunu wayjuru baax bi di ñaan yàlla defal leen xéewal ñi doon réaliser tabaarakallaahu yàlla yokku leen barke yonent bi yàlla nañ yàlla defal tawfiix loolu daal moo doon kàddu yi di gërëmaat ñëpp daal wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Xaaji Muniir euh, Moussa <laughs> jërëjëf euh, sëñ Babacar kàddu yu mujj yi. waaw xanaa rek di sant yàlla bu baax. di sant wayjur yi. Ah, Camara ak képp ku masa sonn ci nun ndaxte ko kenn ku ne. li mhm. xalifa bi di wax ne. Mhm. bala sëriñ bi di la mën a jariñoo day fekk say wayjur sonn ca yow. wallaay kon nag yal na yàlla fay nu war ci. amiin amiin amiin ak képp ku mas a sonn ci nun mhm. waaye itam nag li. Euh, fàttali sama bopp rek te fàttali ñëpp nañu jàngiwaat laxdari ndax dëri mag ñu fonk fonk nañ ko lool dañuy mm. màggat sax di ko jàngal wallaahi te nag dafa am jàngum xale ak jàngu mag mm. xale yi dañuy jàng pour xam waaye mag ñi dañuy jàng pour jëfe te ndax dëri ku ko jëfe walaay di mm. nga rëcc macha allah téere su ce que ba demee fa ñaa ko tasawur sixaar ak tasawur subaan ca kër kilifa gu baax googu waaw ah yooyu day la ca nekk ku ko jëfe mm-hmm. doo génn alxuraan ak sunna macha allah te alxuraan ak sunna nag moom la sang bi waxoon ne taraktu fiikum ma ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'd mhm. Seydina Muhammad bàyyi nañu ñaar yoo xam ne ku ca jàpp doo réer mukk mhm. dama alquran ak sunna mhm. mag ñi fi nekk sanc fi lu baax li imaam Malik moo woon ca Medina dafa doon wax ne lépp loo xam ne dégg ngeen Malik moo ko wax seet leen ko ci alxuraan ak sunna mhm. bu ko wuuteeg moom teg leen la maa léegi wax te jëfe alxuraan ak sunna dëgg la maam Maodo mii ci Tiwaawan tam loolu la wax mhm. loolu mag ñu baax la ñu wax kon ngi leen sant bu baax leen gërëm télé bi ak i moroomam yàlla na yàlla suqali leen ba terang bi gën a yokku parce que nag euh, wax ju baax siiwal ko baax na lool jërëjëf Camara jërëjëf jëf ju baax ak wax ju baax di ko siiwal ndax ña newul ca dara kat ñu ngi siiwal seen. dëgg la dëgg la Kamara bu nag di siiwal lii. ci xeetu jaam yàlla la. yàlla na yàlla fayal leen. yàlla na yàlla fayal kilifa yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf eh, Imam Babacar eh, Kamara jërëjëf Serigne Mounirou Moussa eh, Ndiéguène fa tabarakallah ci jotaay bu am solo bu riche bi nga xamante ne yàlla doxal na doyaluñ ci sax ngir yàlla xam-xam bi fi balle ngir Eh, jëmaat ci ñi nga xamante ne fa tabaarakal ñoom ñooy askan wi ngir jàngalaat leen jikkoy Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam tedd ngay jikko yooyu nga xam mooy jikko yi ñu gërëm yi nga xam moom la làmbool fa tabaarakal te yàlla yónni woon ko mu ñëw ngir def ko ci xeet wi yeesalaat ko fa des désinfecté ni mu ko ni mu ko jàngalee macha allah ci pédagogue am yal na yàlla doole defal ko jàmm kon fa tabaarakal mbokk yi ñu ngi noonu. Euh, sant baax euh, télévision Thiès TV bi yëpp da ko dalee si directeur ak euh, ki nek ci régie bi sëñ Seydou waaye and ak ñom Ibrahima Mbuub ci caméra bi waaye and ko fatabaarakalla ñi nekk si digital bi yëpp soxna yi soxna Ndak ñang soxna Fatou ak ki nga xamanteni mom moy mooy tudat sax. soxna Roqeya moom it bu Serigne Babacar ñu ziyaara leen ñoom ñëpp rek ñaane leen suñu borom yàlla na yàlla dool def leen jàmm mbokk yi lii leen leen jël si woon fii si xadra tool njëgën yéen bu maam kër maam El nga xamante ne fa tabaarakàlla ñaan suñu borom yàlla na yàlla dolli sàmm xalifa bi ak euh, rakam ak njaboot gi yëpp lépp lu jëm ñu xam baax suñu borom dëng ma tëdd doomu aadama rek in uridu illa al islaaha mastatatu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum